salaatun si fi kulli shay'in wa fi safar hamani alamani ma labsa wa safar numéro baytu bis bi ak Serigne Fallou galasi la baytu bis bi nag ñoo ngi ko jëmee ci sëriñ bi limu waxal boppam ci أي خسدام تلبم léppam di njariñ rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi loolu la sëñ Tuubaa wax. muy bayit beneen bu am solo lool la ana lan la ci sëriñ Tuubaa nga xamne mom moom mooy doon sama wéttal ci yoon wi moy téere bi yàlla bi lu cey dolliku yoonte bi alayhi salatu wassalam li nga xamne mom la téere bi wàccoon ci mom motax seigne touba fu ma sa nek alquran ay dend ak mom fi waye mustafa sallallahu alayhi wasallam sallam moo koy wéttali ci wet gi ci des kon yaakaar naa ne. képp koo xam ne alxuraan ay sa wéttal alxuraan ay sa àndandoo alxuraan ay sa doctor ak sa alxuraan mooy sab xarit alxuraan mooy sa avocat alxuraan ay sa lépp da nga fekk ne alxuraan ne maa huwa sifaun wa rahmatun lil alamin mooy problème boo xam ne nit ki am na ko rek moom jullit bi la koy saafara mi ngi ci biir alxuraan kon sëñ Touba solution bi yëpp moo doon alxuraan moo tax lu mu mës a dugg rek am ca ak réussite ba yan bi mu yan woon doon ko liggéey engagement bi mu jëloon di ko liggéey alxuraan jàppale ko ca. yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàppale ko ca ci di ko wéttali nga xam ne lu ko dal ci am na natt lu mu rëy rëy bu delluwaatee ci alxuraan gis yonent bu mu daloon wala wali yu daloon wala borom jamono ju mu daloon mu wakkirlu ci yàlla bayloo yàlla ba loolee mu dékku ko ba ni ko war a amee mu amee ko moo tax sëñ Moussa Ka boo delluwaatee ci baylo mu naan yan ban yanoon xutbu ya ak labdaan ya te attanuñ ko moo ko fa raw waaye nu ko yanoo dëngëñ di te tawatul balaaya suuratul ahwaani la am ci laaya moo tax sëñ Moussa Ka ne sëriñ si naaxis lañu ñëpp dañoo ab xaaj lañ bàmbaay kaamil mbër yëpp suq lañu bàmbaay kaabal loolu yaakaar naa ne boo delluwaatee ci saw sakoor da danga fekk sëriñ Moussa Ka ko fa loolu nag li ko li ko may sëriñ Touba mooy bi muy dem tubaab bi def ko ne lan nga bëgg a yóbbaale. natt yooyu lépp nag mi ngi daan ñëw ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safara saa yu masaa del si ci déwén si rek natt bu ëpp bañ ko tegoon danañ ko ko teg mu di ko yëg ni ko doomu aadama di ko yëge waaye muñ ko muñug malaayika wala tax loo xam ne dépensé na muñug malaayika ba jëlee ci réussir goo xam ne kenn mosu ko jëlee moo tax moo xam ne rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi bayit boobu tey jii moo nekkoon suñ bayitu bis bis bi xam sëñ tubaa bi muy dem yim àndal ak lim àndal ba fam nekkoon lam fa mën a jëlee mu mën ko faa jëlee kon ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen balaa ak di leen ñaanal màggalu jàmm. mu nekkoon bayitu bis bi ñu leen jox dig daje incha allah ëllëg ak jàmm. حماني على ما